<coughs> kooku benn tàkkusaan walla genn guddi wala benn weer walla benn at mënta jeexal ay mbiram xam nga li ñu wax euh, lu la jege fatt say bët wa min shiddati zuhur xafaaw bu feeree ko ndox maanaam jën day yeb ndox ba mu dëkkal te moom nag li jafe xam nga sëriñ du lu ñuy fabriqué jamono ji nag sëriñ yëpp dañ leen di fabriqué sama classe gi moom da wengal mbaxana kolu piif piif laaj koloñ ne ana caméra bi na ma féetee boor bi ndax siiw Seexu Tijaan ne xumul siiw fay waye mom ñiko jégé won ñepp ñëpp da branché ba ci waxa mbané amna ku ku ñuy wax Doudou Ndiaye Kaolack SP la doon liggéey 25 ans la amone ñaar fukk at ak juroom sa bu wàccee 6 heures day jaar épicerie de France jënd fa raisin pêche poire pomme teg ko ci solexam ba solex mu am indil ko sama mam bu sama maam di julli ji timis mu nekk ci wetam muy bësaliku ci mbaggam te torche bi ndax booba Kawlax leeru bu ñu wasifaa ba pare ba julli gee mu ànd ak moom ba ci kër gi mu door a taal solexam ñibbi marché Mbambara booba seen kër foofu la nekk jëmmi bés mu ne sama maam man nag bu ma génnee àddina yow laa bëgg nga taxawee ko ah ku am ñaar fukki at ak juróom di bàttalee sa bopp magam juróom ñaar fukki at kon yow kiir kiiraay bi lañ dindi soo maam branché na ko bu yàgg li wali gis la gis mu génn àddina ci ñaar fukki at yeeg juróom sama maam turki njaaree mam moom la summi bañ ko sangee ba pare moom lañ ko moo njëkk ci ci nja ci yaramam daaw jéeg loolu 1955 la daaw jeeg bi benn tàntaam bu ñuy wax su Sukayna Taal génne àddina ma yebal ñoom ma Bachir suma rakk yi ne leen dem leen gasal ko ci weti duut njaay famille taaleen bi fi leen di suur ñu gas jot duut njaay mu mel nam meloon cinquante cinq ba deux nangam nam meloon noonu la mel kooku xalifa ñese ko branché Allah am taalibe yomb na waaye defar ko moo jafe ba mbokk ci gaa yi yàlla yi <laughs> ah du ñëpp ko man de Baye Moustapha Fouta Moustapha Thiam ca tey ba ngéyeen sama maam da jox benn ismulaay mu liggéey ko aadama yetu gi dem ndax Ali mi nga xam ne ci muqaddami cheikh yi la ba muy dem Màkka dafa jaar Tunus dajeeg Ibrahima Rayaax yi kooku natt ko ci xam-xam mu doon géej mu teg ko néegam wër wër dëkk bi ne leen kaay leen am naa gan goo xam ne musumaa gis ku mel ni moom ci xam-xam ah ñu ñëw lu néeg bi gisuñ ci kenn mu ne ah gan gi moo gaaw tànk man de fii laa ko bawoon te fekkuma ko fi te moom gan la ah, ah xaw fu mu dem de ne kon nag ah dem leen ñu dem mu dell si fekk ko fa mu ne ko foo demoon mu ne ko déw mu fenn bi ngay ñëw damaa téye ismulaay boo xam ne jëmm ji li ci nekk ngelaw day dellu ngelaw li nekk suuf nekk dellu nekk suuf li nekk ndox nekk ndox ruuxu gi rekk a fi desoon loolu tax mënoo maa gis bët du gis ruux Ibrahima Rayaax yi moomu nag ci géej gi la bokk waaye Harazim moomu Cheikh da koo joxoon tur woo xam ne dafa ne ko raw du yonent bi sallallahu alayhi moo ko àttan mu ñëw ba Badar am kës fu janoog rawdu bi foog ne agsi na te moom ma nga Badar sikkar tur wi leer gi gand ko mu daanu ne yereng ñi mu àndaloon ci xujaa ji yëkkati mu të ñu sotti ndox jàllar bi bés mu ne yere ñu ne kii dee na ñu gas ko suul Cheikh fa mu toll ca faas la binne naa ah, dafa nu saaxi bi xayyan sama àndandoo bi suul nañ ko te te mi ngi dund de ñu ne dund na ñetti fan ñii ne juróom-ñaari fan ci bàmmeel door a de xam nga xam nga ñooñu li ñuy dund bokkul ak keleng keleng yi déedéet doomu aadama dafa foor wala xat karam naa bani aadama xam nga xaqiqatul muhammadiya yàlla bu ko neexoon mu def ko ci garab yi mbaa mu def ko ci géej yi mbaa mu def ko ci doj yi waaye ci doom aadama la ko def loolu tax doomu aadama foor kon fooraay boobu nag ku bëgg sa xaajo faju hadiyaay Seydi Ahmad Tijaani Sharif jóg sa xaajo faju hadiyaay Seydi Tijaani ci sëriñ bi ñëw ñaan yàlla

tafsir Moustapha sama maam jox ko aw tur mu sikkar ko aadama yetu gi dem mooy lii lii lii nekk doomu aadama mu summi mbubb yi sànni summi tuba yi sànni ñu dab koog malaan am na taalibeem buñ doon wax Ablaye Gueye mu nekk Grand Yoff Dakar yàlla mayoon ko barke mu duggee fa oto ñëw Kawlax ne ko sa taalibe bi day xel ma dafa soppeeku léegi dañ doon xalaat ñu luye fii avion ci tubaab bu ñuy wax Galigo ci Kanda bu Kawlax boobu planeur yooyu ñoo fa nekk mu yóbbu la wura soogi sama maam ne ko ah jaru ko xam nga li tubaab yi wax télégramme mu ne ko waaw mu ne li may def fii laa koy def mu fekk ko foofa lu ko jar tot dem leen ba ñuy demat góor gi ne cooc ba mu del siyaatee di doon nit kenn ci doomam yi ñu koy wax Habib bi mu nekkee xalifa mu ne ma bay day bi mu delsee ci la sadd baytu boobu xaadani xaaidul ilaahi imaami bi yemini fa niltu aqsal maraami mu ne xalifa da ko fa fekk roofu ndeyjooram bi dem ak moom asamaan mu ne ñu ñew ci place bu yaatu beñ baangi ngi tal mu fekk nit ku tok fi keneen tok fi keneen tok muy wër nit ñi ñew naan ko ki mana ki mana ki mana ki mana maqamam romb na lolu dem na rewo moy moy ganar. ñu ne ziarabi bi nañ ko bés sangam mu ñëw bañ a tardé ziara bi mu ne tey de bu ma jàllut ci gaal yi boo moytuwul ñun danañ tardé ziara bi mu ñëw fekk gaal yëpp dem ah mu ne daal di tàllankaale gi bind ci xalifatul haaji Muhammad teg ko ci kaw ndox mi yéeg ci ñam àndaloon yéeg mu daw ak ñoom ba ca tss ga mu yëlëb kaala gi ñëw ziyaara fii lew na ñeseen boobu sama maam ngi dund de mu nettali ko ñim mu àndaloon seede xam ngeen taalibe mooy def karaama yëf yi yëpp ci pas-pas la ne sëriñ ak taalibe ñaar ñuy wër benn garab la boo fekkee wut ba ñuy tàmbali doo xam ku jiitu karaama yëpp taalibe yee ko def su sama maam taalibe la talibé cheikh la aliou tamassini yu nga dekon tamassina diggante mom ak fas juromi téeméeri kilomètre la mu fay waré di ñëw di ziar cheikh fas yoon wi nak am tandarma go xam bu neex la mu dag ci benn ba nga xam yakamti na del ciat bam del ci si ci tandarma gi dag ko dafa joxon ci gi rek ne len tazhab ila sheikhi ahmad tijani cheikh fim tok ni ak taalibe yi rek tàndarma ji ne juré ci sen kaw nit ñi bëgg daw mo luli luli cheikh ne tamasi nuyu dox bi moko def te ma nga 400 km xam nga li nit ñuy dund ci zaahir ak ñoom li ñuy dund ci baatin <coughs> bokkut bu ko neexee mu taxañal la suuf si xool leen ko demee ni Cheikh Omarul Fouti yi foo dem ñu ne la Cheikh Omar Fouti yi jaar na fii jur te warul avion warul oto warul sax fas tànkam loolu mbir la tayul ardi la yàlla day lem suuf si fu ko neex dem ñooñu nag bu la yàlla mayee nga am ci kenn mu doon sa wasila yow texe yoor yoor bi muy waajee da bëggal taalibe yi ak képp ku ko sol mu ne man yàlla may na <coughs> ma neexoon kenn du dem safara waaye xeres naa yàlla ne la ab laan na jaar na ma ma dindi ko te xam nga koo xam ne yow dee la dese doo wax pour puukare àddina ndax <laughs> àddina wàcc na la alax te nga nga jëm te foofu amul dayo kon doo fen amalu la njëriñ di mu ne waaye waxuma sama taalibe waaye ku dégg sama tur sopp ma sa yaram xaram na safar